way waango sila ab safaan yaay mbërum diine ab safaan bëgg tuuti ku bëgg sayda loxoy càkkam day bëre daa jaratu sayda sayda ab safaan yaay sayda sayda ak safa yaay borom diine sayda bëgg na nu yaa sayda waaw cheikh yaa xewle ndax yaa mi bégale yaay borom diine yaay sala tuute soppay sayda jug leen taxaw sayda ak safa yaay borom diine wax leen sayda

ndax sànq ba tey mënu ma naan jox leen sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke bu suyee daa daanelee wala moo dem nga nga nga gungee ko ko yàgg yàgg ñoom maam li maamul naa yi bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah gannaaw bu nu santee yàlla julli ci suñu sang bi sayiduna muhammad صلى الله عليه وسلم دي واخ رك اي بي ني تامبالي سي لو ني واخ دي وما بكم من نعمه فمن الله خيول بون ام رك يالا نكوي سانتي ناخ يالا رك مونوكو مانا جوخ الحمد لله دي نيو نك سونو ياي سخنا ما انت دي ياي شيخ تيجان nga xamni ñom vraiment samay doom lañu mais samay xarit lañu ñu bokk ci man ñu féetale ma ak ñoom ma féetewoo ñoom wax dëgg yàlla li ngeen wax li nga daanelee nga ne fii doo lan xalaatuma ko ndax daagu fal nobee nag waaw ah, wolof dani daagu fal nobee te xam naa ni bu doon yéen kese laa fekkit mhm. macha allah duma fi ñaaw di nuyu Cheikh Niang moom tam nekk suñu frère nekk suñu soppe ñu bëgg ko te yéen ci yàlla Muhammad rekk tax yàlla xam na ni tey jii imaam mi nga xam ne ci suba léegi ci lan laa nekk ñaari semaine yëpp xale yi daara ja dañuy tànn ñu ëpp xisib bi ñu jeexal daal di leen du yóbbu plage tey jii ca plage balaa jóge yebal xale yi oto yi yóbbu leen ma am fu ma jaar sangu sol yére woo imaam ni ko xaar ma maa leen guddeel te sa jëmm ji moo tax soo déggee ni may waxee xam ni baat bi dafa dee mais maa ngi naan imaam koo xamul noo koy def na mu la defa tax dama leen woo ci koor gi ñëw sagal ma saa bu ñu ñëwee rek daal di may sagal beneen émission ñu ma problème mu invité koo koy ñëw otoom paan heure bi jot ñu war a dugg ma jaaxle mu woo ñu ko imaam jaaxle naa de làmbal ma ngañ ak Cheikh wallahi keroog ngañ dafa am ngant mais Cheikh bi fa ñëwee keroog sama xol bi dafa sedd sedd nga xam ni lii cofeer rek moo ko man donc looloo tax euh, lu mu metti metti rek man sama jëmm ji dinaa ñëw ba nga gis ma ñoom xam nañ bu baax bari ay xew-xew yu rëy yu xew ci réew mi mais kenn duma fa gis nga gis koo xam ni xëy na jàpp nañ li sax duma ñëw ma ñëw toogal la ba mu jeex ndax koo xamul noo koy def na mu la defa tax Abdoul Aziz Fall maa ngi lay nuyu Cheikh Babacar Daro Habibi waaw ñëpp maa ngi leen di nuyu sama chéri yi soppe yi waaye euh, Cheikh euh, Pape Ndiaye Cheikh Pape jërëjëf keroog daa waroon a ñëw mais da doon nelaw Pape dafa waroon ñëw. day nelaw rek wallaay. dafa dafa waxtaan waxtaan woo xam ne kenn du ci teg dara ndax waxtaan ne ci alquran jàngale na yonent bi ci alquran wax na lu wér loo xam ku ko dégg di nga xam ne fawut Sëriñ Tuubaa mi ngi daane dafa ne ala man alayya walastu sadiq lahu kulla aamin hadaaya maliq dane damay tagg yonent bi su ma koy tagg duma ko tagg ci façon boo xam ni maanaam rafet duma mel ni koy tagg buur yaag dammeel yaa lii la Sëriñ Tuubaa wax yonent bi mais Cheikh Pape waxtaan yu fi def dafa am solo jàngale na ci ci ci ci Seydina Ali loo xam ni ñun ñëpp mën nañ ci jël leçon ci dogu gi ak gëm gi ak bëgg gi te yàlla nag xam nga fu mu ne ci koo xam daa dogu mam aadama ba ko yàlla dugalee aljana ni ko lekkal garab lekkal loo bëgg ci aljana waaye garab gi bu leen ko laal yow ak sa soxna wala taqraba hadihi shajara fa taquuna min azalimin bu leen laal garab gi suñu ko laal rek bokku ca kat ya iblis ñew ni ko waxtaanuma de dama lay feelu rek iblis ñew ni ko yàlla li tax mënal la bu lek garab gi xam nga lu tax lu tax yàlla nekk buur kese est-ce parfois du len di dal nga tok naan ba serigne touba mu ko ko jangal nga ni diw ko jangal ko ko jangal nga ni diw sama baye kuy baayam nga ni diw nga naan waa bi ku ko nga nga mujj ci yàlla nit dalay dal après yow nga du bëgg a dugg naan après yàlla kàlla moo tax dañuy tere jullit sax muy def loolu nga bëgg a dugg nag naan yàlla moom après après yàlla kenn iblis ni maam aadama yàlla xam nga la lay bañ ku ku mel ni moom parce que moom kese fi ne gis nga garab gii mooy mulk boo ko lekkee dangay mel ni yàlla moo tax mu ne la bu lekk garab gi fa waswasa lahuma shaytaan iblis jax-jaxal na aadama mu ne ko boo koy lekk di nekk yàlla comme moom mam aadama jóg dagg ca garab ga lekk bi mu lekkee yéreem ya naaw yàlla ni leen qul nahbitu minha جميعا benn bi mu ne ko baadukum li baadin adu beneen bi mu ne ko qul nahbitu minha jamian fa imma yatiyannakum minni hudan fa man tabia hudaya fala yax falaya fala xawfun alayhim wala hum yaxzanun ci suratul baqara yàlla dàq leen mu leen dem leen ngeen liggéey nag balaa ngeen di dundati da ngeen di liggéey teraanga ji ma leen mayoon génn iblis moo def lii iblis bi ñu bi ñu laajee bi ñu laajee iblis koo gën a bañ dafa ne mooy ki Pape doon waxtaane léegi iblis bi ko yonent bi ne koo gën a bañ dañu ko anta Muhammad yow laa gën a bañ dama laa bañ ndax li tax ma bañ la mooy sunu maam Maodo moo nettali ni jour bi nga xam ne ci lañu ëmb يونتي ابليس دافا يوخ وان رنا لعين يخضره وهو من وقال ويلكم يا امتي دخلا من احسن توامي تي مودو مام مودو نينا ابليس دافا يوخو يوخو لا ديف يوخو ني نكو لا لا مو ني بيرتنا سما طالبي ñàkk na ëmb nañ ko dina juddu te bu juddoo kenn dootuma topp dootuma mën a réeral kenn te giñoon na moom iblis ni yàlla fa bi izzatika la ughwiyannahum ñoom ñëpp lay dëngal te bi muy giñ bi muy giñ ci yàlla ci doole yàlla la giñ parce que iblis dafa xam yàlla danoo yàgg mu xam lii bégal yàlla xam koy yàlla moo tax bi muy giñ xoolal xuloo na ak yàlla mais ci yàlla la giñ mu ne ko ñoom ñëpp sa jaam ñëpp laay dëngal yàlla ne ko illaa ibaadaka minhumul muxlasin kon pap li mu jàngale mooy dog gi nga xam ne moo nekkoon ci saxaaba yi te yàlla ne dogu googu moo nekkoon ci aadama moo tax iblis mën koo jax ba génn ko kenn kese moo ñu mën a dimbali xasma kenn kese moo ñu mën a xettali kenn kese moo mën a dox suñu diggante ak sa suñu borom kenn kese mooy ki Pape wax sànq ni yàlla ne ko wala saw fa yu'tika rabbuka dinaa la fay ba nga ne doy naa nee nañ nag fay googu fay googu nga xam ni moom la yàlla wax yonent bi ni ko dinaa la fay mi ko leer la ci wan najmu idaa hawaa maa dalla saahibukum ba summa danaa fa kaana xaaba xawsayni fa awqa ilaa abdihi maa wax léegi loolu ñu waxante ñoom yàlla ak yonent bi rek ko xam nee nañ nag wala soo fa yu'tika rabbuka fatardaa boobu su yoomal qiyaame su yoomal qiyaame bagaa yëpp daw ñëpp waaf ci yonent bi la ñuy ñëw yonent bi jóg yonent bi jóg yàlla ni ko bul laaj saltuta laajal loo bëgg ñu jox la mu ne ko sama xeet kese laa bëgg ñoom ñëpp ñu dugaal can kon Cheikh may ma daane damay daane yàlla ni ko na ñëpp dugaal can yonent bi di dugal di ramm di dugal di ramm dugal moo tax yàlla ni ko wala soo fa yooti ka rabbuka fa tarda dinaa la bàyyi nga leen di dugal aljaba ñoom ñëpp yonent bi ni ko yàlla kenn desatul sama xeet lu dul dinaa ko dugal naa ko aljanna kon nañu nañu nañu gën a bëgg yéen ci bi de la ah, xaara xaara xaara xaara xaara xaara ana ñu bëgg yonent bi liñ dese nañ ko ko jox bëggal leen seen mbokk jigéen bi kenn ku ne loo dese rek ñu jox ko ko mu jeex benn yoon Seyda yàlla xam na ni ñëw leen toog toog toog Seyda da ngay eggal dimbale ma dimbale ma dimbale ma dimbale ma